première chose c'est la prévention avant nous nekk di facteurs di mais c'est la prévention et la prévention repose sur un, environnement propre un environnement sain et l'environnement fait partie de l'un des déterminants de la santé Si nekkee un environnement bobu nak rafet na baax kon ñu ñi population bi vivre ci dans une euh, dans une bonne santé et environnement bobu moy garde le cadre de vie et pour préserver cet écosystème initiative bi da ci am solo trop parce que nous savons que si zone Fouta bi nek bëri avancement désert bi ak li ñuy wax té les gens coupent les les euh, dañuy dag garab pour diko diko di affaire yooyu mais bu ñu ba garab amatul kon doom aadama dundam day jafé donc bu garab amé l'amélioration cadre de vie ak conservation écosystème bobu daf ñuy arrangé donc vraiment ma ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm vraiment délégation bi jógee Matam pour ñëw jàppale ñu ci journée bi di gërëm aussi tout le personnel et la chasse femme ñi nekkal fi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne content nañ bu baax a donc Boy Nadji Vert moo ñu fi indi tey mu nekkoon di planter euh, axe bi gën a mag ci dëkk bi mooy axe bi nga xam ne moo nekk ñaari dëkk yi entre quartier Rundé ak quartier Sinthiou mais aussi axe bi nga xam ne moo nekk axe euh, Kër Serigne bi mooy xalif général bu Boy Nadji ensuite benn axe bi nekk nga xam ne moo nekk suñu góor mooy mooy Rundé donc loolu bu ñu ci génnee ñu planter nañ aussi dans les dans les maisons donc cette année am nañ production de dix mille plants depuis euh, longtemps on est en train de planté dans les maisons looloo tax sax dèjà ñu ngi commencé gis liggéey bi ñu doon parce que am na xam ne actuellement ñu ngi lekk ay fruits yoo xam ne projet bi ñoom ñoo nga xam ne dinañ leen fournir en dotation de de plante ginnaaw bu ñu rendre vert comme objectif bi ni ñu mooy rendre vert koy naa ji bu si paree objectif bi mooy euh, quartier yi nekk village yi nekk aux alentours yëpp Donc c'est juste pour encore nous, lutter contre euh, le réchauffement climatique, contre les problèmes environnement, mais aussi rendre agréable son cadre de vie. Donc à comme toujours nous nous accompagnons, nous nous accompagnement dans le cadre logistique accompagnement dans le cadre aussi des des semences tout ce qui qui touche aux finances parce que nañ aujourd'hui le défi de l'environnement est, est grande nous, nous lu la soxla dafa de dafa trop en termes d'argent ci tamit ci semence yi war a soxla parce que gis ngeen euh, tey demande bi moom moo ëpp sax moo ëpp sax li ñu li ñu joxe donc à l'avenir bi ñu ngi projeté am lu mu bon bon euh, ñeenti junni wala lu ko ëpp sax ay ay ay ay garab vingt mille vingt mille plantes pour que au niveau du village ñu mën a satisfaire demande bi mais aussi au niveau de la commune ñu mën ko ñu mën ko